حمدي وزوجري لمن كل به سايرين له ردا دون سوء عند سرسايرا ku julit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal waaye bokki Mauritanie bu ngeen jàkkaaroo jotaay bu sell bii xel yëpp dal ci xam ne bis bu jàmbaar la muy lan bisu Touba Sat Sara xam ngeen ne jotoon ndigal ci sëñ Mountakha Mbacké xalif général kulu mi ñëpp ñaanal yàlla Mbacké mu yàgg fi te wér ñëw nag ci mboolem jori ñi nga xam ni ñooy liggéey bii di màggalu Sat Sara ca Mauritanie ñu jàpp ko kañ muy fukki fan ak benn ci weeru tubaab wi ñu jëm di mois de juillet 2019 looloo waroon toog fi diggal Seexul Xadim gu mag gi jàkkaru jumaay ji toog ci jataay bu njëkk bii ginnaaw mu jàmbaar ji jotee ndigal di soxna sa Mbàkke di jàmbaari Sat Sara ñëpp xam taxawaayam xam paseefam xam liggéey suñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci moom loolu war mu jot ndigal nag fas yéene woote ci bis boobu nu jëm mboolem mi ñu gis ziar ba baax tey jégalu ren nag kàddu yi ñu ngi koy jégalu ndax dañu fee toog suñu suñu bunt ci yoon yi muy jabatu Cheikh Omar Diop ba moo tax tey amuñu kàddu fii ndax ak taalibe di fi toog ak Cheikh Omar Diop moom sëñ Makhtar Diop ak sëñ Cheikh Hassane Diop moom Cheikh sëñ Cheikh Diop moom ak Seydou Abdou Khoudous Mansour Mahfouz Diop léegi nag amuñ fi kaddu ñoo suñu jëwriñ ci yoon yi kon bisimilah Serigne Cheikh Diop kaddu gaañoo. ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu bàyyikoo ci Serigne Cheikh Mbacke Diop mi fi nekkal Cheikh Omar Diop jaar ci Cheikh Mouhamadul Mokhtar ak mboolem njabootu sëñ Omar gi sëtti Serigne Omar yi te Serigne Nara sant di wasila sëñ Ousmane mi nekk ca bopp. nuyoo yooyu yëpp nag mu tegal ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Mountakha ak njabootu sëñ Touba gi ñu fi loolu tamit. ku gis jataay bi nag xel war a dal bu baax xam ne ñi ngi dëgmal bis boo xam ne bis la boo xam ne symbole la ci yoonu murit muy Sarsar ndax ku ne xam ne tukki ñaareelu ji jéeri ji Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ci atum baksas euh, ci la amee woon werdu euh, Mappus ci la jote woon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ci la gisante woon moom ca Sarsara mu jox ko werdu tedd wow kon sëriñ bi nee na mi ngi jox ndigal njabootu Sëriñ Omar gépp biir réew ak bitim réew fi fi waay mën a ne te mën a joti foofee na fa dem ndax bis la boo xam ne alxuraan ak xasida ak liggéey Sëriñ Tuubaa rek moo nu fa yóbbu te moo ba fii nu ne moo nu ba ci sunu dund moom la ñu fas yéene deewaat sarsaara googee it dana am jeexintal ndax man ñi lu ñu def ne rek su borom dana ko sëmbatal ci njaboot bi ndax Ousmane mii maamam di sëñ Ousmane mu mag di sëñ Omar di leen ñaareelu sarsaara moom la àndaloon jëli naa ci sama maam sëriñ Naar Assane mu ne sëñ Ousmane Samb dox bu tar ba tax na tànk déyam dafa des gàmm moo tax kon Ousmane nii rek la mën a mel noo ngi koy ñaanal waaye it di ñaan suñu borom dafa sëñ Tuubaa bindoon te muy béy du lool te jàmbaar gi jaar fi léegi wax ko si sëriñ Assane Diop wax nañ ne bokk na ca ña xam ne ba ko sëñ Tuubaa di bind ma nga foofu muy ina la si na ila sa sara xas xasado ziarati fara bi ak jataay yi yàlla na suñu borom boole ca ñooña ñi dem ak ñi ak ñi demul te am yéene dem ziar yi barab bi at mu jot soxna Maysa Mbàkke dina dajale ay milliers de personnes yéen convois yi yéen yóbbu Sarsara ñuy siyaare ñu ko def moo tax ren mu am innovation boo xam ni dina ko ci def woo na ñëpp Mame Issa Mbacké woo waa Sénégal woo na daayira woo waa Maroc woo na képp koo xam ne taal bi sëñ Tuubaa nga mbaa ngay soppi sëñ Tuubaa te mosoo dem Sar Sara solo may sa mbàkk nee na ñu ngi lay woo ci bis bi Dakar bàyyiwuñu kenn fédération Ahlou Café Dakar na ñëpp mobilisé na ñëpp topp waxtu bi dadul maye ñu lim nit waaye woo nañu ñu ànd ak solo may sa mbàkk sa ñëpp laaj dina dina wax ci départ yeeg bañ yeeg lépp waaye maa ngi wax waa Dakar ni leen le 8 la départ ñu ngi koy départ kër sëñ Touba ci Colobane ci bunt kër soxna Ndeye Mbacke mu soxna Bintu mu sëñ Mbacke Mbacke foofee la ñuy daje bu ñu reeree ba pare fa la ñuy départ kuy ñëw nag sa pièce d'identité CEDEAO lañ la wax nga indi ko ancien carte d'identité yi soxla woon ko pièce yu bees yi carte yu bees yi lañ wax noonu ku bëgg a dem nag da waaj léegi léegi jug di jënd koy jógee ak sa passe paas yi cinquante mille ñu defaree ba tey. soxna maam gis nga ak lu tax ndax euh, liggéey bi xeemeem buñ ko xeemeem moo ñu ko dugal dañ ko cee fekk muy suñu njiit ndax man mii wax ak yéen sama bàjjen la sama maam la maa ko fii teg mag nag waaye teewul kilifa moom suñu borom koy dogal. ñu fekk ko ci liggéey ba am xeemeenti fi ànd ak moom mu yaatal lu ci lool ñu ànd ak moom at mu ne di dem sa sarsar waaye suñu borom dogal man mii nga xam ne ah suñu borom daf ma féetale. Ndakaaru ndax mën naa ne Touba moom laay dëkk sax waaye suñu borom féetale na ma fa maakaan moo xam ne at mu jot sama kër la ñuy déparé taseeg moom Louga ñu ànd dem kon nag ñoo ngi woo mbokki jullit ñëpp ak képp ku daa dem ak ku débutoon ndax def naa Sarsara moom rek a fa nekk di woowee nag képp ku dul jullit rawatina taalibe murit yéene gañ leen ko yéene rek moo tax ñu toog fi di ci ñëpp bëgg ko àndandoo ñëpp it nag te ñëpp ñu bokk koy sellal ndax euh, képp ku jóg ngir liggéey Serigne Touba war ngaa sellal liggéey ba ndax Sëriñ Tuubaa dafa sell woote bi nag niñ ko daan waxee rek lañ koy waxee waat soxna si day faral di wax ne da daan dégg Sëriñ Saaliw di wax ne su ko leeroon ne ñëpp dem nañ xel comme dootu ko woote waaye soxna si tam nee na su ko leeree ne ñëpp dem na Sarsara dootu ko woote waaye feek mi xam ne am na benn murit bu taxawagul sarsaara mu di ko woote ndax yéene na ñëpp tàkkoog bàkkaaru àddina ak bàkkaaru àllaaxira te Serigne Touba nee na ko fa dem tàggoog bàkkaaru àddina ak bàkkaaru àllaaxira kon xew-xew boobu lañu leen di yëgalaat ci ndigalal Serigne Mountakha ak magam yi nga xam ne tam ay kilifaam lañ muy ku mel ni Serigne Fallou Mbacke mu Cheikh Mamadou Mourtada waaye ak Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Mourtada mi nga xam ne moo nekk Nouakchott ak mboolem fédération soppee Seexul Xadim yi nga xam ne ñoo jiite liggéey ba ca Nouakchott ndax moom toujours day wax ne lépp lu muy def ci kilifteef ak ndigal la koy teg ndax loo am attan koo joxe ngir yàlla foo geesoo gis ku la ko attan yàlla loo am attanoo ko joxe ngir yàlla boo dul wër addina ba mu daj doo gis ku la ko attana jox ngir yàlla moo tax moom darajaam ak taalibeem ak jëmmam lépp da koy joxe ngir jëmmi Serigne Touba ku sëriñ bi jiital rek mu ànd ak yow ci liggéey bi jàppale la kon na ñëpp maase xam ne moom day jàppale Serigne Sidi mu Cheikh Mamadou Mourtala ci liggéey bi di ab taalibe rek ba faaw su ko defee nag xew-xew bi ñu ngi ko jàpp ren fukki fan ak benn ci weeru juillet muy le 11 ba la ñu jëm. waaye départ bi nag moom le huit lay doon le huit lay doon ñaari départ tam ba ñett dana am dina am départ boo xam ne ci njiital soxna maam Isa fii ci Touba kër sëñ Touba gi ci Daaru Marnaan la ñuy déparé am na beneen départ boo xam ne dakaar lay doon ci njiital ajaratu faamaloo mu war a déparé kër soxna Ndey Mbàkke gi nekk ci Colobane moo kër sëñ Touba gi benn la am na beneen départ boo xam ne tam war naa am mbuur waaye yeneen dëkk yi nga xam ne mooy Thiès ak fu mel ni Louga ba Ndar ñoom ñëpp kenn ku nekk départ yooyu ma tudd am na foofu yi dem ngir ànd ak ñoom am na ñoo xam ne nag Louga la ñuy daje ak ñoom kon noonu la liggéey bi demee ni ko bàjjen ma waxee léegi nag képp koo xam ne bëgg ngaa dem Sarsara tàmbali nañ bind mi danañ joxe numéro yi nga xam ne ku ci jokkoo ak ñun dinañ la mën a bind te it léegi am nañ ay moyens yoo xam ne mën ngaa bind yónnee sa carte d'identité lu déplacé wu mën ngaa yónnee sa avance bu fekkee da ngay paas te doo déplacé wu kon loolu danañ joxe numéro yi waaye paas bi ni ko bàjjen Faamoo loo waxee diggante 40 mille la ak 50 000 ndax oto yi bokkuñ am na oto yi 40 000 am na oto 50 000 waaye lu ci mën a am numéro yi ñuy joxe ku ci woote foo ci bëgg a dugg dinañ la ko mën a leeral li bàjjen Faamoo wax ne tam dinañu fàggu ay dalukaay yu mucc ayib yoo xam ne képp ko dem dem bee ñëw bi lépp incha allahu taala ak tumuranke moom jàpp nañ ne du am ci yoon wi dem ak ñëpp loolu ñu ngi koy ñaan sëriñ bi gën ñu ciy jàppale ndax soxna si mi ngi ciy dox ay jéego yàlla na ko suñu borom soppal ak jàmm ci barkeb sëriñ Tuubaa su ko defee am na tam liggéey bu ñu fa naal boo xam ne soxna si ne woon na liggéey boobu tam nañu ko yëgal bokki taalibe yi ndax dañu faa naal jàkka te kenn ku ne xam ne ne sëriñ bi fu mu mas a nekk jàkka la fay njëkk def ba mu demee Sarsara ñeenti barab la fa am mooy kër jàkka fi muy roote ndox ak fi doon waxtaanee mag ñi kër kenn mënu bañ am ndox wa al naa minal maahi kullu sayin ayin fam doon waaree sëñ bi ab jàngalekat la woon ndax yonent bi moo ne ko rabbi ashaabaka bil imma wala turabbihim bi darsa faqat kenn ku nekk xam na ne tam wa anal masajida lillahi fala tadoo maa laay ahada mu waxoon ne waj al buyuti kullaha masajid moo tax mu defoon fa jàkka doon fa julli wa joojee nag la ñu bëgg a jëmmal tabax ko ba mu méngoo ak jumaa yu mag yi ñu xam loolee tam tàmbali woon nañ ko ca at ya weesu waaye soxna si nee na mi ngi soñu bokki tali bi yëpp képp koo xam ne am na addiyee joo xam ne bëgg na koo def ci liggéey boobu numéro yi ñuy joxe tam boo ci jokkoo danañ la wax waxtu wa nga xam ne ca nga ko war a indi soo ko indee tam danañ la ko defal ca liggéey ba kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu woote bi bàjjan faama wax na ko carte d'identité yu bees yi nga xam ne moom lañ mujj a defar moom la ñuy soxla wala passeport koo xam ne tam da yor sa oto bëgg a dem na nga teel a jokkoo ak ñun su ko defee la war ci ay këyit ñu mën la koo teel a wax nga mën koo lijjanti ba sa oto mën a dem loolu lépp liñ ci jublu rek mooy benn jafe-jafe bañ a li des nag mooy numéro yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg naa dem Sarsara bu mu bëgg ay leeral mën na cee woote moom lañ leen di jox bi ci jiitu mooy numéro soxna maam Issa Mbacke ahlu café moom numéro mi ngi nekk 77 141 90 17 numéro boobu ku ci woote information bu bëgg am soxna si dana la ko jox soo wootee tam ci ñaari numéro yi may joxewaat mu topp ci mooy sama ñaari numéro benn bi mooy 77 874 39 00 bu dee numéro Tigo bi te am na WhatsApp koo xam ne dafa bëgg yónnee carte d'identité wala yu mel noonu yëpp mën na ko ci yónnee mooy 76 585 79 67. wala numéro soxna Faamaloo mi nga xam ne moom moo jiitee départ bi ñu war a def Dakar numéro bàjjen Faamaloo mi ngi nekk 77 655 47 09 numéro boobu tam am na WhatsApp bokk na ci numéro yi itam soxna Ndey Mbàkke mi nga xam ne. moom la ñuy départ këram ca dakaar numéro mi ngi nekk 77 374 38 16. bu dee itam jëwriñ sëriñ Ousmane Samb moom itam ku jokkoo ak moom lépp lu di leeral dana la ko mën a leeral ci numéro yii muy 76 581 33 02 wala 77 968 65 wala nga woo sëriñ Moustapha Dieye Massamba. moom mi nga xam ne moo jiite kuréelu Sassar bi nekk Mbal moom itam numéro mi ngi nekk 77 141 117 laa bëgg a wax 117 417 06 58 Serigne Moustapha Dieye 77 417 06 58 kon loolu mooy woote bi ñu ngi woo bokki julli yëpp di woo bokki taalib yëpp di ñaan yal nañ ko tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim yal nañ ko àggale ci alhamdulilah rabil alamin te mag ñi nga xam ne ñoo doon laxas di dem Sarsara nga xam ne am nañu faatu ci yoon wi am nañu sonn xiif nañ fa xiif bu metti waaye li leen sëriñ bi fayee jar na ko muy tàggoog bakkaar faatu tàbbi aljanna ñu ne itam loola rek lañ fay wute ndax am na ku ñuy wax sëñ Màkka Saar kere ba mu àggee Sarsara dafa niwi sëñ Touba waaye daa wëlbati ko rek faatu sëñ Touba ne nañ ko yóbbu ci armée li puufa denc ko ñi koy gunge nag su ëllëgee maa leen gàddul aljanna kon loola wane na ne mag ña fa doon dem sonnoon nañ waaye la saxaaba yi fayowoon ca yow ma batar moom la ñuy yaakaar Sarsara yi ñu jëm kon nag yàlla nañu dajeeg bayit wi muy innal lazina ila sarsara xat xasadu ziyaarati faaraxu daari ni aw sara ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm waaye tam di wax tam eh, ñaari état yi nga xam ne ñoo yilif suñu ñaari réew yi te mooy Mauritanie ak Sénégal te njiital Sénégal di président Macky sàll njiital Mauritanie di Rahis Abdoul Aziz ñoom itam ñu ngi leen di wax ne seen doomi ñaari réew ñoo war a daje ngir màggal ab soppe boo xam ne dafa liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci suuf su tedd soo xam ne ardu saalihin la ko tudde woon muy suufi Mauritanie waa Sénégal dañ fi jógee di dem Mauritanie ñu nekkoon ay njaboot yoo xam ne dañoo mujj amante ay relation ba siq ay njaboot loolu fi nekkoon ci lu baax aku jëflante suñu ñaari kilifa yooyu di ko sàmm tey ñoom itam ñu ngi leen di wax kon lépp lu ñu mën a jàppale ci yoon wi bam ra tax ñu ngi leen koy sàkku ngir jël gi leen yàlla jël teg leen ci kanam njiiti ñaari réew yooyu te loola sàkkuluñ ko seen bopp waaye yàlla suñu borom leen ko fal ndax mooy fal buur ñu nangul leen ko kon ñu ngi sàkku ci ñoom ñu rataxalal ñu yoon wi te jàpp na lañu ko bañ mën a dem ci jàmm del si ci jàmm ci barkeb Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëfati bokki juliti bokki taalibé yi bis baa ngi noonu woota baa ngi noonu ka lay doon le 11 juillet 2019 départ bi di kañ di le 8 fu ñu départ ci Touba Mbacké kër Cheikhul kañ moo woote bis bi lépp nag mi bàyyi ko ci diggal suñu mu taqaa Mbàkke mi ñëpp ñaanal yàlla Mbàkke mu yàgg fi téwél waaye nag jàmbaar yi nga xam ñëpp xam na ko dañuy xare soxna maam Isa Mbàkke ahlu café doomu Cheikh mu du fati xëri moom suñu Masamba jigéen jubal góor moo woote bis bi na ñëpp xam ni ñi seetaan ak ñi déglu nan xam ni loo gis ne am na jiit njiit ak jiit nag bokkul njiit day fetawaay njiit day jiitu dem soxna Isa Mbàkke mooy njiit ma tax sëkk njiit kooku moo jiite fédération Sénégal ak biir Sénégal ak biti Sénégal ak Mauritanie fas yéene ànd ak ñayu xare yi départ fii nag jëm Mauritanie dama ne ana daayira yi ana jigéeni maam jaare yi jigéen lislaam yi ana mbootaay yi ana ñi bëgg lu baax ana ñu bàyyi ndeyale ak magale yi fu ngeen jëm topp ci jàmbaar lislaam kan soxna sa Mbàkke doomi soxna Fatou moom sëñ ma sàmm dama ne gaañi bis baa ngi noonu ku ca jëkk gën ku ca mujj gën ah gaañi ma ne ko bàyyi ndeyale bàyyi magale bàyyi lépp dana Seexul Xadim Seex na Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul tey la dan la ko suñu Bamba fay tey sa saara saf saara saf saara fu saf nga xam ku fa dem tàggoog bàkkaar booy waaj tàggoog bàkkaar booy yegg tàggoog bàkkaar boo ñu bisee koo dajal tàggoog bàkkaar wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu